أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ñu ngi sant yàlla ñu ngi koy màggal ñu ngi koy kañ ñu ngi julli tey sëlmal ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan yàlla mu dolli ko xéewal moom ak waa këram ak képp koo xam ne teg na tànkam ci sunnaam bés penc loolu yom ne yàlla yàlla ñu ci yàlla boole ñu ngi ñaax suñu bopp di leen ñaax ñu taxoo ragal yàlla fu ñu mënti nekk te ñu xam ne ci loolu rek lañu mën a amee teranga àdduna ak àllaaxira yàlla nañu yàlla defal li nga xam ne mooy taqwaa boobu loolu yomb na ko ñu ngi fàttali suñu bopp tam di leen fàttali xutba yi passé ñu ngi nekkoon ci mooy tandiku li nga xamante ne moom mooy shirk rawatina bi ñu leeralee la nga li nga xam ne mooy tawhid te xam ne loolu moo tax yàlla binduñu yàlla bindul nit ak jinne lu dul ne nañ ko wéetal ci wéetal boobu noonu ngay mën a nekk daal di moytu li nga xamante ne moom mooy shirk leeraloon nañu lan mooy shirk mooy li nga xamante ne moom mooy utal yàlla ndend loolu dafay nekk li nga xam ne moom mooy shirk waaye gën na yaatu loolu dem sax ba ci ay melokaanu borom bi subhaanahu wa taala nga koy jël di ko weddi wala nga koy jël di ko askanalee keneen koo xam ne du moom kon ci mawdu boobu rek la ñuy continuer pour rek li nga xamante ne mooy gën a yaatal ñu xam ne bokkaale nekk na bàkkaar bi nga xam ne mooy bàkkaar gu mag mooy bàkkaar bi mag yonent bi saa salaam laaj na saxaaba yi lan mooy bàkkaar bi mag kan moo ko xam ñoom dañoo tàmm bu leen yonent bi laajee dañ koy naan yàlla ak yonentam ñoom ñoo xam ngir bañ a jiitu yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yonent bu ñu ko waxee loolu tamit daf leen di mujjee leeral question boobu nga xam ne la leen laaj moo dafa bokk ci pédagogie nit ki boo ko bëggee wax loo xam ne day dugg ci moom mooy nga jiital laajte nga laaj ko su boobaa di nga di nga ko marqué attention boo xam ne dina la bàyyi nopp ci li nga xamante ne boo koy leeral mu xam ko ak mu bañ koo xam ki ñuy laaj tamit war na am modestie boo xam ne suñu la su la nit ki di laaj lu ëpp jëlal sa xam-xam nga teg fee bu fekkee xam-xam nga bëgg am moo tax boo demee si salle armation yi fu nga koy gën a gis jaar naa salle nangam salle nangam salle nangam mais booy doog a ñëw ci benn salle dañ lay naan carrément li nga jàng salle yëpp tuural ndax nga mën a rotaat li nga xam ne mooy lu bees kon nit su fekkente ne dafa bëgg am xam-xam suñ ko posé question ko posé te fekk borom xam-xam la liy yomb ci moom mooy naka bàyyi ak réponse bi su ko defee dina mën a dégg saxaaba yi noonu la ñu doon dundee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu leen laajee lan mooy li nga xam ne mooy bokkaale bu mag bakkaar bu mag yonent bi daf leen tontu ne bokk bakkaar bi gën a mag ci bakkaar yi moom mooy bokkaale yàlla waaye ak li nga xamante ne mooy ku dëddoo ak ay waajuram. gis nga bokkaale lu muy màgg màgg màgg yàlla daf ko jël dendale ko ak dëddoo say waajur loolu lu garaaw la alxuraan yàlla fu mu waxee léeg-léeg souvent ci ay paragraphe boo ko seetloo lu mu leex ubudullaha jaamul yàlla lu mu ciy teg wa bil walidayn ihsana wa la fay teg mooy ñoom ñaar dañoo kole jaamul yàlla rafetalal say waajur nit ki su dëngoowee ak ay waajuram rek bu jaamoo yàlla yàlla buggul ci lu mu jaamu dara day sonal boppam doom kon nga gis fu ko yonent bi leeralee waat ci xadis méngale bokkaale ak ki nga xam ne rafetalul jëmale ci ay wayjuram maanaam nit ki su jaamoo yàlla te rafetul ak ay ay wayjuram yàlla soxlawul jaamo bi waaye yonent bi mu laajtee ban bàkkaar moo gën a mag dafa jël bokkaale yàlla gis ngeen gis ngeen yàlla wax si inna shirka la zulmun azim bokkaale mooy bàkkaar bi gën a mag yonent bi jël ko daal di koy dendale ak koo xam ne dafa dëddu li nga xam ne moom mooy ay wayjuram kon loolu lu danger la te tey jii lan la ñuy wax suñu jamono mooy jamonoy jamonoy njabootu kanaara wayjur bi doom bee koy moo koy orienté au lieu que doom bi topp wayjur bi ci lu mu ko teg déedéet moom wayjur bi mooy mujjee xool li neex doom ji mel na léegi doom ji moom mooy sangu wayjur bi loolu la ñuy dund léegi te dafa bokkoon ci mandargay mujjum jamono yi bu ñu demee ba gis doom nekk san sangu wayjuram te loolu danger la pour gis danger bi rek mooy natt ko ci bokkaale nu mu toll nit ki bu fekkente ne génn àdduna te tuubul bokkaale bi mu nekkee woon du dugg àjjana loolu loolu ay alxuraan bu leer naññ la ku deewaaleeg bokkaale te tuubu ko du dugg àjjana te bu duggee safara du fa génn fa lay sax waa léegi ki nga xam ne moom dafa dafa dafa dafa jóog ay wayjuram nag day ñëw ñoo ñoo bokk yem bu ñu demee ba ne ba ne ba ne ki ki ki di mooy ay wayjuram ak ki bokkaale ñoom ñooy bàkkaar yu mag ñu ne bokkaale lii kat mooy fayam kon war nañu xoolaat suñu diggante ak suñu wayjur yi te tey dafa tumuranke lool tey dafa tumuranke lool lool lool lool lool néew na nit ki di rafetal jëme ci ay wayjuram yàlla bi mu wax ci alxuraan dafa ne sa wayjur bul ko wax sax uf mooy baat bi gën a gàtt ci arab uf yàlla tagg ki nga xamante ne moom moo màgg am reconnaissance ci ay wayjuram mu nekk am na doom boo xam ne moom day màgg di ñaan yàlla sax yàlla yërëmal samay wayjur comme niñ ma yërëmee woon bi ma nekkee xale yàlla nee na ñii ñooy doom yi nga xam ne mooy doom yi texe àdduna ak àllaaxira waaye ki gën a yées ci doom yi mu ne mooy ki nga xamante ne dafay wax ak wayjuram uf si ñun boo xoolee mooy ciipatu par exemple wala sa waajur wax nga sànni ko loxo aka fi bëri dañ dem sax ba jaakaar ne loolu mooy yoon kon nit ki bu bëggee nat gravité bu nekk ci loolu na ko nat ci bokkaale fu mu toll bu fekkente ne xam na lan mooy bokkaale yàlla nañu yàlla may dégg ak topp yàlla nañu yàlla xiir ci boppam aquli qawli haza astaghfirullaha li wa lakum saa'iril muslimiin min kulli zambin fastaghfiruhu huwa rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ci benn point bu ñuy jëlaat rek ci li nga xamante ne moom mooy bokkaale ñu bañ tee sori te xam ne daanaka waxtu bi daf ñoo xaw a xocc te naaj bi tàng na moom mooy que ne bokkaale dafay dem sax ba ci li nga xam ne léegi dafa nekk loo xam ne lu law la ci kaw suuf te dara yóbbee wuñu ko loolu tamit ñàkk xam moo ñu ko yóbbee mooy xarxa fuufa yu bëri tey xarxa fuufa yi mu ngi ci mbagg doomu aadama yi mu ngi ci seen i ndigg mu ngi ci buntu place yi mu ngi ci see seesu seesu directeur yi xarxa fuufa yi mu ngi fépp mu ngi ci oto yi mu dem sax ba ñu jàppee ne lii kat mooy loo xam ne lii mooy lu wér am na benn waaye dafa mos a summeeku bi muy summeeku fi mu summeeku saa buy liggéey bu wàccee rek ay tëneem fi mu koy summi mu summi fa ñaari xarxa fuufa am teg daal di ko fay fàtte dem ñibbi fi mu ko fàtte am kenn koo xam ne moom dafa jàpp ne lii moom bu ko gisee daf ko war a sànni te effectivement mbalit la mbalit sax moo ko tane moom comprendrewul te comme am na accès foofu te moom moo fa ëpp sax responsabilité moo gis ko fa mu xëy daal di koy jël sànni ko waa ji bi mu ñëwee xëyaat di xool tane mi fu mu nekk muy wër di di seet affaire mel na comme ku jaaxle ba ngay xool xaram bi sax xam ne kii tey moom ça ne va pas mu di ko jeex di ko jeex di ko kii nangam. ba ñu fekk ko fa ne ko waa tey moom lan ngay seet seet bu métti gi nii rek xanaa dafa am lu réer mu ne de sama xarxa fuufa yi fi ma ko bàyyi woon démb moom laa ñëw nii fekku ma ko fi dama ko fi fàtte woon après ci lañ ko ne waa mais moo la yóbbee sax situation bi nga nekkee nii yow kay xarxa fuufa fi fàtte bi dafa la war a am lu bari lu mu la war a jàngal sax ba sa kanam gi leer ba buñ la gisee du war ñoo gis jaaxle sa kaw ndax bu fekkonte ne nii nga tegee xarxa fuufa yi seen place respecté leen nii dem ba yaakaar ne mënal nañ la sax loo xam ne yàlla mi la mi la sàkk mënu ko war nga ci jàng ci diggante démb ak tey da nga ñibbi dem fanaani bàyyi ko fi su amoon lenn lu mu mën mooy doo ko fàtte boo demee bay dem dina la woo ne la kaay jël ma ñàkk mën dara bi mu mën dara moom moo tax nga di ko jël di ko takkal sa bopp bu mënoon dara day ñëw takkal la boppam ndax ki nga koy dendaleel moo ëpp loolu yëpp ci la ñu nekk di ko waxtaan di ko waxtaan di ko waxtaan di ko waxtaan ba mu retrouver xaw ne ndekete ci réer rek la nekkoon loolu exemple la boo xam ne terre à terre su fekkonte ne loolu mën na dara kon tey bi mu ko fàttee rek yoon bi mu jëm yëpp ci sànkute lay nekk waaye yaakaar bi ñuy yaakaar loolu yaakaar ne am na lu mu ñu mënal ginnaaw yàlla moo ñuy yóbbee yenn problème yi te fekk du dara ñu ciy nettali ñaari xadis rek yoo xam ne dañ koy lamas mu gaaw ñoom saa salaam gis na benn waay boo xam ne daf koo miin comme ni ñuy miinantee léeg-léeg amul kersa si digganteeg moom mu romb ko takk li nga xam ne mooy xarxa foofu bi mu dugal baaraamam ci xarxa foofu bi xëcc ko mu dagg lu mu ci teg boo ko deewaalee doo texe maanaam xëcc mu dagg bi rek bu ci noppi woon rek mooy wane ne waroo koo takk baaxul mais daf ko xëcc mu dagg mu teg ci mu ne ko boo ci dee boo ko deewaalee doo dugg àjjana ñaareelu xadis bi bii neuf personnes ñoom ñoo ñëw di tuub si ci biir neuf yi ñu ko am am am na koo xam ne yaramam bi yëpp gàllaaj la te ñoom nee nañu ñoom ñoo yàgg dégg yonent bi pour ñëw dugal seen bopp ci diine islaam te yonent bi moo leen wër ñoom ñoo dégg yonent bi xam ne lu muy woote dëgg la ñu wër si ko pour dugg ci si diine bi ba gis yonent bi ñëw daal di jox yonent bi ne wax wax yonent bi seen seen li ñu bëgg def yonent bi jox leen loxo waxal ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah boo ko waxee mën la jaaral ne borom gàllaa ji moom yonent bi mu ngi koy tëb rek saa bu koy bëgg a jox loxo sax day mel ni da koy da koy fent jël keneen ba tuubal huit yëpp daal di koy beddi moom wan ko ginnaaw commencé waar li nga xamante ni moom mooy huit personnes yi ñoom huit personnes yi ñoo dog yonent bi ne ko kii kat ñoo ànd suñu groupe bi la bokk yonent bi ne ah da ngeen ne dégg ngeen ma ba bëgg dugg si diine bi waaye waa ji dégguma ndax su ma déggoon du nekk ci përëma mi ay gàllaaj fii xut bi xii taniimatul waa ji ne ko baadu lii moo daggal boppam gàllaaji sànni yonent bi doog koo jox loxo doog koo dugal ci diine bi allahu akbar lu ñu dégg foofu mooy que ne jamono bi mu ko takkee mënul dugg ci diine islaam te tey ay julit ñoom ñooy woote ne man julit laa maa ngi ci biir diine bi xar xa foofu yi fees seen yaram ñooy dem ci xàmb yi ñooy dem ñooy dem te mbokk yi loolu yëpp ci xeetu bokkaale suñu borom subhanahu wa taala la yàlla moo ëpp doole ay mbir yooyu takk pour di ko di ko di ko ko xoolee léeg-léeg nga gis benn waaye mu ne la lii dama ko fi takk rek ngir mu jegeel ma yàlla déedéet du loolu da ngay dem ba finalement boo moytu loolu ngay jaamu fàtte yàlla chauffeur bi nga xam ne yaakaar na ne xarxa fuuman boobu bu ko takkul ci volant bi bu demee day accidenté su ko fàttee day dof day mujjee dem il faut que ma jëli ko ay na laa ana yàlla mi nga xam ne moom mooy ànd ak yow ci voyage bi muy benn léegi teg nga gàllaaj bi foo xam ne teg nga place u yàlla moom mi war a ànd ak yow ñaareel bi aussi yaa ngi def loo xamante ne yonent bi jàngalu la ko mooy place boobu ngay yaakaaree gàllaaj bi am na lu la yonent bi jàngale booy voyagé booy yëg ci oto lan ngay wax maanaam tey yaa ngi rey sunna yooyu kon yii la lay yóbbee benn dina la yóbbaale bokkaale borom bi waaye dina la yóbbaale rey rey sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loo munti dugg ci gàllaaj yi yaakaar ko rek boo demee ci diine yonent bi am na lu mu jàngale loo fa war a wax ci loo munti yaakaar ci gàllaaj moo xam liggéey bu bees booy doog am moo xam booy génn sa kër moo xam booy dugg ci wanag moo xam moo xam moo xam yonent bi jàngale na lan nga war a wax foofu kon yooyu ni ngay sonnee pour dem am gàllaaj bi lii moo gën a yomb nga def ko am tuyaaba nga def ko nekk ci ci ngërmande yàlla nga def ko nekk ci protection yu yàlla moo gën ngay nekk ci loo xamante ne nii du dara parce que yàlla dafa misaal ñi nga xamante ne ñoom ñoo jël yeneen yàlla yu dul moom yàlla dafa mel ne comme néegu jargoñ la ñu jël ku dem surtout Ankabut aaya 41 dina ko fekk yàlla mu ngi misaale ñu jël yeneen mbir di ko jaamu jël ko di ko dendal ak yàlla di yaakaar ne am na lenn luñ leen mënal lu dul yàlla yàlla nee na ñooñu li ñu jël mu ngi mel ni néegu jargoñ lan mooy néegu jargoñ mooy loo xam ne boo jëloon xeer bu ndaw bi sànni ko sax mu dagg mënu ko téye jargoñ rek la mën a téye mais nag ñu am xel dañuy bàyyi xel ci loolu yàlla ñu yàlla may dégg ak topp yàlla ñu yàlla musal ci bokkaale yàlla ñu yàlla musal ci bidaa loolu nekk na mbir yoo xamante ne moom moo ñu nar a sànq allaaxira mbir la yoo xam ne buñ ko deewaalee te tuubuñu ko suñu demee wuy ji yàlla duñu am benn yoon boo xam ne mën nañ fa jaar kon nañ ko moytandiku incha allah si mawdu yëpp boo moytul ci yooyu la ñu préparé ci xeetu yi nga xam ne mooy xeetu shirk ba ci ñi nga xam ne bokk ñoom ñoom diine sax lan moo leen yóbbee ci bokkaale yooyu ñu nekk ñu mun koo moytandiku suñu gisee koo xam ne mu ngi ci loolu buñ ko mënee waar ñu def ko parce que génnee kenn ci ñoom indi leen ci diine islam moom moo gënal yàlla àdduna ak li ci biir kon yooyu yëpp war nañ koo xam rabbana atina fi dunya xasana wa fil axirati xasanatan wa qina azaba annar rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfirna wa tarxamna lanakunanna min alxaasirin rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina xurata ayun waj'alna lilmuttaqina imama rabbana atina fi dunya xasanatan wa fil axirati xasanatan wa qina azaba annar rabbana axfir lana wa liwalidaya warhamhuma kama rabbayani saira rabbana axfir lana wa liwalidaya warhamhum kama rabbayani saira برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على الأحياء والأموات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله